ñu ngi leen di nuyu bu baax te deen siyaare di jiital ci nuyooyu ak siyaare yi ak ñaandi cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi toogal cheikhul Khadim ak njabootuk sëriñ tubaa gépp noonu lañ koy ñaanale Serigne Abdou Khader mi nga xam ne moo fi toog toogaayub sëriñ Darou Hassan ak njabootuk Serigne Darou Hassan gépp di ñaanalit Serigne Djili Ndiaye mi nga xam ne moo fi toog toogaayub Serigne waaye noonu la ñuy ñaanale sëriñ Cheikh Irada Ndiaye xéewal moom mi nga xam ne moo fi toog toogaayub sëriñ seex Fat Sila Ndiaye xéewal ak mboolem njabootug sëriñ Cheikh Fat Sila Ndiaye xéewal gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di siyaare bu baax mboolem taalibe yépp ñuy waxtaane jëmm joo xam ne kenn la ci njabootuk sëriñ Touba gi waaye kenn la ci njabootuk sëriñ daaru xasan mu di sëriñ seex fat si la njaay xeewal sun la laajee kan mooy sëriñ seex fat si la njaay xeewal danga naan sëtub sëriñ daaru xasan la mu bokk ci sët yu mag yi mu bokk ci sët yi nga xamante ne bii ne wuutu nan ko fi liggéeyal ko fi liggéey bu rëy sëriñ seex fat si la njaay xeewal nekkoon doom ci sëriñ bay faalo sëriñ bay faalo sëriñ daaru xasan waaye kan mooy waajuram bu jigéen soxna fatsi la bokkoon ci waa curang la mbaakol sëriñ seex fat si la njaay xewal gane jamono ci dëkk bi ñuy wax Touba Njaay gi nekkoon dëkkub sëriñ daru Hasan, daru njaay njàmbur njareeg yooyu yep dekk serigne daru hasan la waye mu nek ko xamne ku marqué empreinte la mom serigne Cheikh Faty la ngay xewal ba jamono duutu ko fatte ba mukk mu liggey liggey bu reuy te dara mus ko ñor du ngeureumal yalla ndax kunu kunu fagul ngeureum la bimu amé juroom juróomi at à l'âge de cinq ans ci la ko woy juróom jële sëriñ Mbay Falloo yóbbu ko mu jàngi ndax sëñ Mbay Falloo daa bokkoon ci ñi bari woon xam-xam ci yooyu jamono mu teel a yóbbu sëñ Seex Fat si la mu jàngi mu jàng alxuraan ba mokkal ko mu ñëw mu wut yóbbu ko mu jàngi xam-xam ci diggante boobu nag mu xam ne nag jàng baax na lool sëriñ Mbay Falloo jël ko boole ko ay fasinaaru góor ak koppar yu duun jébbal ko seex Mouhamadul mustafa ne ko Cheikh Ndiaye mii dama bëgg nga def coom li gën am njàng lu gën am njàng te ñëpp xam na ne ngërëmal yàlla gënum njàng ndax ngërëmal yàlla mooy li jar nit ki àdduna mooy li jar nit ki alaxira te ci ngërëmal yàlla ci nga mën a fale ci nga mën a follee mu jël loolu ànd ak moom nag yóbbu ko ca daara ja muy liggéeyal Cheikh Maodo Moustapha te Cheikh Moustapha leen rek ko ñoroon mooy liggéeyub Serigne Touba bi Cheikh Mahamadou Moustapha Serigne Cheikh Faty Sylla Ndiaye xewal di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba 1945 mu wàcc ab liggéey sëriñ Bay Fallou jëlati ko yóbbooti ko ci Serigne Cheikh Gaynde Fatma bi mu ko yóbboo ci Serigne Cheikh Gaynde Fatma mu nekk fa nag. di ko liggéeyal kenn ku ne xam na ne Serigne Cheikh ku am ngërëmal yàlla la ndax ngërëmal yàlla maam Cheikh ne Fall da daan wax ci kër gi ne ni ni ni ni ni ngeen di nuyoo ku mbokk ci waxoon mbooloo mu bari topp la mooy koorom mu ne ko jaajëf faay ne ko jaajëf faay mu ne leen jaajëf de ndaw na lool waaye ku mbokk ci waxoon mbooloo bari topp la kon jaajëf mu ne su ko wax ku jëful. da ngay jëf sëriñ seex nag nekk koo xamante ne bii ne daraam du itteem lu ngërëmal yàlla te sëriñ Bay Fallou nekkoon jàmbaar joo xamante ne bii ñëpp gis na ne dafa jëloon ndosam joxoon ko Cheikh Mamadou Moustapha ndax ba muy bind leetaram ba dafa ne ko day ilayka yaa xutbul waraa aslamtu nafsi xaraa ruuxi wa ruuxi man sara ilayka yaa moom sëriñ Bay Fallou di wax na Cheikh Moustapha ne ko dikk naa ci yow mi nga xam ne yaay xutbu jamono ji sama ruu ak bépp ruu boo xamante ne bii ne nangu naa rañaan dikk ci yow dikk ci man mii nag jibbu lu raam sukk jox la ko yow mi nga xam ne yaay boroom jamono ci daane nag amul kenn koo xam ne tiimee Cheikh Moustapha fenn maa min wàllin aw raqib aw xawsu ahlal qarib illaa ala tax raqib laq bi amul ku ne wax xutbu nga amul ku ne wax xaw su nga amul wàlliyu nga amul kenn koo xamante ne bi ne jiitu jiitu nga dara Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha mooy ki nga xamante ne bi ne moo dajale ndàmb yépp téye sëriñ Cheikh si Sylla Ndiaye xéewal nag ñu boole kook ay ay nag ak ay fasinaaru góor jébbal ko Cheikh Moustapha ne ko kii dama bëgg nga defal ma coom lu gën am njàng sëriñ Cheikh daal di ñëw nag nekk ci daara ja nag ba mu jógee fa nag 1945 nag mu mu ñëwaat ci Serigne Cheikh Gaynde Fatma nag aha bi mu ñëwaatee ci Serigne Cheikh Gaynde Fatma nag nekk fa di liggéey di liggéey liggéey ba am benn bés sëriñ bi wàcce ko nag andi ci Serigne Mbaye Falloo daan na ko am na ngërëmal yàlla dafa ñëw rek Serigne Mbaye na ko siw subhanallah ngërëmal yàlla de su ko wute nii wàcce goo dellu waatal ca daara ja subhanallah serigne bay eh, serigne bay delloo ko mu dello wat ci dara je mel na ku tambali wat di liggey yakul ci pas-pasam dara dara dara Sering Cheikh dafa nekkon ko xamantene bi ne ku amone intention la moy limi muy jëf da koy da koy gëm te bo duggé ci ab liggéeyam donte wo ay jamono yu njëkk da ngay xam ne kii def pas-pas la ci andal te pas-pas moy agal nit ki ci lepp amone gi. al imaanu itiqaadu bil qalbi wa qawlu bil lisaani wa amalu bil jawaarih sëriñ Cheikh bu masaan jëf dangay xam ne góor yàlla dëgg ngi nii mag ngi nee nan bu massaan nekk ci toolu Cheikh Moustapha wala mu nekk ci toolu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma bi ba takk ndigg li bu jëlee gob bi bu ko dóoree ci suuf si dangay gis ni muy xare ay donju lay def tasaaroo ndax lan dooleeg pas-pas bu mu daan àndal ki nga xam ne dafa gëm am intention di jëf day feeñ ci xol bi cër yi di ko jëf làmmiñ wi di ko tudd sëriñ Cheikh passage boobu la amoon bi nga xamante ne bi nekk na ci toolu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma di ko liggéeyal ba sëriñ Mbaye delloowaat ko bi toogaatee muy liggéey di liggéey ba wàccaat jotaat sëriñ Cheikh Gaynde Fatma dafa yëkkati kayit jël xalimaam bind leetar sëriñ mbay faaloo xamal ko ne Cheikh Ndiaye mii booba ci yooyu jamono garaatu xewal bi tappalagun ko ko sëriñ Cheikh lañ ko daan wooye waaye bi kër gi baree ay sëriñ Cheikh Ndiaye la ñuy dàkkantale kenn ku ne sa jur moom ñu di ko wooyee sëriñ Cheikh Fat Sila Ndiaye waaye bi mu liggéeyee ba am garaatu xewal la ko sëriñ Bakki soxna loo tappal garaatu xewal te loolu des na ci agsi bi mu ñëwee bind lettre boobee daan ko. Cheikh ndjay momi day am ngeureumal yalla amna am Cheikh mustafa man Serigne Cheikh Gaynde Fatma am sama ngeureum Serigne bayna sou subhanallah kon Cheikh ndjay raw waye nak nangou nanguta jàng leetar bi ci kanam dako dak legui nak nag jël leetar bi téye dadi daal di mel lo, ku ko déclarer guerre bu nek ci bi Serigne bay fallo Serigne Cheikh magadi diko di goudi diko di ko di ko sonnal lu ne mu di ko loo ndekete booba ku muy préparé la ndax ku war a teg ci kanam la ku war a xettali jaam ñi la koo xamante ne bii ne lumière bi da ko waral dafa war a leeral ñeneen ñu topp ci ginnaawam ba liggéey bi metti nag ñu dem boole ko ñu dem ci Serigne Cheikh na ko boo waxul boo waxul ci sëriñ Cheikh mii danañ ko gaañ ndaxte liggéey bu metti bu na sëñ bee faral dana ko def mu bindaa leetar bindaan lettre daan ne Serigne faalo Fallo man Serigne Cheikh Gaynde Fatma na nga xam ne Cheikh Ndiaye moom mii def naa ci moom ba lépp lu ñuy def ci góor yàlla kon leneen lu ñuy jéemaat ci moom ak yàq lay gën ruwaay doo ak defar mbir ma daal di confirmé wu nag mun a ah, siw subhanallah kon Cheikh Ndiaye raw na léegi nag mu commencé koo yolomal nag waaye tax mu bàyyi da koo yolomal ndax jëfe ndigal gi Serigne Mbaye Fallo daan ku ku daan jëfe ndigal la laa tafaaloo sayen bi xeeri isni fal isni sarfun fi xabalu seeni sëriñ Cheikh nag nekkaat koo xamante ne bii nag léegi nag mu ngi ci biir kër gi nag taxagul muy fanaan ci kër gi waaye ci daara ja lay fanaan sëriñ Cheikh Faty Sylla la ñuy xewal neen daa demoon ba mujj mu jàpp ne moom ci daara la dëkk jàppewul ne dana nekk ci kër ngir ku nuy defar ak jukko ju baax defar na am néeg ñu defaral ko am néeg néeg bu rafet mu rëy lool. sëriñ Bay Fall dugg ci kër gi ne sibu subhanallah comme néeg bi ñu ne ko xanaa sëriñ seex Fat si la mu ne sibu subhanallah wool ma ko mu ñëw mu ne ko seex danoo bëgg am néeg boo xam ne day ci kër sëriñ Cheikh Gaynde Fatma sëñ bi neen yëkkat néeg bi yëkkat néeg bi wuti nga xamante ne bii ne jël dafa jël position boo xamante ne bii ne saaboo boo nekkoo ëcc ci ndigal pare na sëriñ Cheikh ko paree ngi noonu amul dara lu koy lu koy tàddal fenn ci ndigal ndigal rek murid la boo xamante ne bii ne dara moomu ko dara saaboo boo ne koo ndigal jekk na ndigal rek mooy li nga xay moo ko moom waaye sëriñ Cheikh Fat la nee na daanan ko xottil mbubb mu rafet boo xam ne mbachin russe lay doon mu ñëw sukk ci kanamu sëriñ Bay Fallou nuyu ko su duggee néegam summi na mu ma ba teg ñetti morso yi summi na ko ba teg ne sotti mu yónnee ndaw na ko wool ma Cheikh Fat la mu ñëw mu ne ko Cheikh danoo bëggoon mbubb moo xamante ne dañ koo bëgg a yóbbu ci kër Serigne Cheikh mu daal di lem ba mu jekk dugal ci saagam jox ko na ko bisimilah kon ku pare la woon waaye loolu lépp li ko waral mooy sàkku gi muy sakk lu baax te Sëriñ Tuubaa moo ne woon raamal wara nay la lu musri'ana lahu waaye wal fadlu inda rasulillahi al qaraar lépp lu ñuy sàkku rek mi ngi ci rasulillahi te Sëriñ Seex Faty Sylla Ndiaye fi mu sàkkoo ngërëmal yàlla ci rasulillahi la ndax lan benn mooy ci Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Moustapha am ngërëmal Serigne Touba Serigne Cheikh Gaynde Fatma Serigne Mbacke ñoo toog ci kanamu Serigne Touba Cheikh Khadim mu leen seen waajur wi gërëm naa ko ndaxte day Cheikh Moustapha dane dama bëgg ngeen bindal ma ab kaamil Serigne bind kaamil Serigne Cheikh Gaynde Fatma bind kaamil Serigne Mbacke Madina ñu jële ko tindoo di fanan fii ci surra Cheikh Mamadou Moustapha bind ab kaamil ñu ànd war ko yóbbu ci Serigne Touba boole ko sikki ak libé ak li nga xamantene modi sidiada ak li ci war yëpp ram sukku ci kanamu Serigne Touba Cheikh Mamadou mustapha daan na bëgg bëkk bokk ab Serigne ñu ne jëyi kaamilub Serigne Cheikh Gaynde Fatma wa isxaala luqman cheikhul khadim nako jàngal mako mu jàng ko. laata boobu nag mu ubbi kaamilub sëriñ Mbakke Madina muy sootu sajja nga gis kenn ku nekk sa taxawaay taxawaayu alxuraan la waaye nag mu leen seen waajur wi de gërëm naa ko nga xam ne kon lam ñu gërëm naa sëriñ gërëm naa Cheikh Moustapha ci sëriñ Touba lu lu nit ñi seede la te Cheikh Moustapha moomee nag gërëm na sëriñ Cheikh Faty Sylla Ndiaye xewal kon sëriñ Cheikh Faty Sylla Ndiaye xewal jëlagul na benn point foofu ci Cheikhul Khadim bi Serigne Mbaye Fallou wàccee ab liggéey 1971 Serigne Cheikh Gaynde moom moo dawal otoom am na mag ñu fi nekk ba léegi fekke nan ko moo dawal otoom ba agsi na leen kii de jamono moo baaxoo rek ñu ñëw naan ko di ko jaale waaye man miri lañ ko waroon a jaale fu mu yendu maa ko fanaan maa ko fanaanal lum ci lum nekk ci man la waaye tey jii bu àggee suñu borom dana fa gis loo xamante ne bi ne xaatu ko wut sax ba di ko fàggu am ko yuuxu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma tegaat micro ba dugg ci oto ba dem kon kooku am na ngërëmal si sëriñ Cheikh Gaynde Fatma te sëriñ Cheikh Gaynde Fatma moom mii gërëm na sëriñ Cheikh Faty Sylla Ndiaye xewal kon ba léegi sëriñ Cheikh Faty Sylla Ndiaye xeewal am na ngërëmal Cheikh Moustapha am na ngërëmal sëriñ Cheikh Gaynde Fatma am na ngërëmal sëriñ Bay Faalo kon am na ngërëmal yàlla te sëriñ Tuubaa mën ne woon képp koo xam ne yaakaar nga ne am naa kenn ku may liggéeyal ku dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sa yaakaar ndax na la man sànna ni xayru xadimal Moustapha fa inna nii aqdimahu bi Moustapha aqdimahu ilaa duxuli janna daaril qaraari wal mana wal minna amul ma kenn ku may liggéeyal kur rasulullahi liggéeyal rasulullahi ba jot ngërëmam mu liggéeyal saxaaba yi ba jot seen ngërëm mu liggéey mu liggéeyal taabiina ba jot seen ngërëm moo tax mu day képp koo xamante ne yaakaar nga ne am naa kenn ku may liggéeyal ku du rasulullahi yow sa yaakaar ndax na la daane nag waaye nag am naa seen ngërëm ñoom ñëpp nag kon ci ngërëm loolu yi ci la sëriñ Seex Faty la Ndiaye xéewal sukkandiku ba am ngërëmal yàlla waaye bi nga xamante 1971 nag sëriñ Seex toog na nekk fi nag di sëriñ Bay Fallou fekk fi ay baayam ndaxte bi sëriñ Mbay wàcce ab liggéey sëriñ Ousmane Ndiaye moo toog ci jamono waaye nag moom sëriñ Cheikh Faty Sylla Ndiaye xewal toog toogaayub sëriñ Mbay Fallou war a liggéey liggéey bi nga xam ne sëriñ Mbay Fallou moo ko tàmbale woon mu dem ci sëriñ Cheikh Gaynde Fatma daan na ko li saa baay manoon mën naa lu ko ëpp maa ngi nii yafal yafal ngeen ma ba ma mel nii leen neex wet gu la neex jaar ma fa maa ngi nii du daw duma ma jaar ma ci kaw soo neexee nga jaar ma ci suuf soo neexee nga jaar ma ci penku soo neexee nga jaar ma ci sow muy simaal ak xarb ak sarq ak junóob wet gu la neex jaaral pare naa ne ko lii ma la wax soo ci amee loolu la ciy wedd yaa ngi nii maa ngi nii mu jox ko liggéeyu mondóob jox ko Daaru Salaam ma liggéey bu mu ko jox bu ca Sëriñ Mbay doon def ñaari minute sëriñ Cheikh Faty Syll Ndiaye bu yooyu benn miin la ca def kon la ma waxoon lépp confirmé na ko teg ko ci teg ko ci fi nga xam ne nag fi ko bëggee mu liggéey ay liggéey yu rëy yu baree baree baree bari yoo xamante ne bii ne sëriñ Cheikh Faty Syll Ndiaye xewal dara mus koo impesé lu dul ci liggéeyub sëriñ Touba bi waaye jamono di dox di dox ba nga xamante ne bii ne nekk na fi nag di sëriñ Daaru Assane est-ce que xam nga ne Serigne Mbaye Fallo mooy ñaareelu xalifa Serigne Darou Assane ci ay doomam waaye Serigne Cheikh Faty Sylla Ndiaye xewal mooy ñaareelu xalifa Serigne Darou Assane ci ay sëtam te kenn ku ci nekk fa nga tàmbalee ba yam fa foofu la Serigne Cheikh Faty Sylla Ndiaye xéewal tàmbalee ndaxte Serigne Mbaye Fallo lépp lu mas a am lu nekk. daf na moom day liggéeyal ki nga xamante ne bi ne moo di Cheikh Mouhamadou Moustapha rek la ca nekkoon waaye mu nekk ci liggéey boobu ba daan daan wax naan man Cheikh day awma lenn loo xam mu lay wut ci àdduna lu dul ngërëmal yàlla ba liggéey bi mu mujjee liggéey mu ngi ko liggéey soxna Xadi ma liggéey boobu bokk na ca ña ko doon taxaw sëriñ Ibrahima jëmb mi ak sëriñ Makumba Njaay ak man mii ak lenn ci njabootu Serigne Cheikh Faty Sy la ñuy xewal ak ak li nga xamante mooy daayira xaddaayul Fadaayil mu nekk ak koor Serigne Cheikh Faty Sy xewal nekk ci tawet ji te danga xamul ne bi muy wàcc ca daara ja bi Serigne Cheikh Gaynde Fatma nekkee ci di ko wàcce daa woo soxna Xadi Fatma ne ko yaa koy témoin bind leetar yaa koy témoin bind leetar boobu xamal na leen kii am am na ngërmal yàlla. Serigne Cheikh Faty Sylla Ndiaye xewal bi muy wàcc soxna Xadi Fatma la mujjee liggéeyal liggéey booba ànd naa ca ci ak koor la ñu kor yi laataa ñu tëbaski mu wàcc ab liggéey la desoon ca xaalis ba daf na la yulli lépp soxna Xadi ma kon bi mu fi jógee te mooy sunuy mujje ak xéewalam nin la ci mosol tuuti rek lenn la mooy dañuy liggéey Taïf ca sanc ñi nga xamante ne bii ne moo di maçon yi saa bu fa jaaree nuyu leen waxtaan ak ñoom yónnee leenum xar mi ngoog léeg-léeg mu jaar fa yëkkati lu bari ci xaalis jox leen ak ay mbuusi tàngal am na ci koo xam ne nee na man dama toog ba mu yàlla ñuy liggéey man a saam xel ay bu nu sëñ bi wutaloon ndawal gu baree baree baree baree bari ba defal defaral nu ko bu baax ba ma ba ma ba ma fas ca bu baax a baax danaa gën a mën a liggéey sëriñ ba jaar faak oto ba ne yónnee leen eraada danaa la yónnee aw nag yónnee leen aw nag ak la cay ànd lépp ñu ne borom xéewal dëgg ngi nii nag sëriñ Mbàkke soxna loolu di dem ba dëgg loolu ne woo leen ma ko ñu ñëw mu ne ko yow mii da ngaa xamul man maay borom xéewal waaye nag tudd naa la sëriñ Seex Fat Si la ñuy xéewal sëriñ Seex Fat Si la ñuy xéewal na ko ndax am naa sañ-sañu loolu yi ma ko mu ne ko waawaw mu rey ay nag fee ca Taïf Mbàkke woote ñu xéwlu ba pare mu xamal na leen ne tudd naa sama bopp tuddanal ma sama bopp li nga xam ne moo di Serigne Cheikh Faty Sy la ñuy xewal fii ba Cincinnati wala Chicago wala Ibiza wala Tenerife wala Rome wala fu mu ci mënti nekk soo bindoon ab lettre bind ca Serigne Cheikh Faty Sy la ñuy xewal fii la jëm si ci Serigne Cheikh Ira dañuy xewal mii moom mi ko fi nekkal kon mooy boroom xéewal te nag miftaahullaahi al Moustapha mahdiyullaahi al Moustapha wallaahi moo li karami kon moom borom xeewal la kon liñ ci mujjee rek mooy bi mu fi jógee sëriñ seex Era dajee xeewal moo uf njaboot gépp dajale waat leen ñoom ñëpp nag njaboot gi ñëpp mu jiitu def fédération bu kër sëriñ Cheikh Faty Sylla Ndiaye xéewal lépp lu sëriñ Cheikh doon def benn moo ko wax mi ngi fii bu toogoon ma wax ko moo ne ma lépp lu sëñ seex doon def benn naa ko yëg te xam ko du ma ca def benn ñaar laa ca def ndax ku yokkul yaa wàññi yàlla na ko fi yàlla yàggal ak mboolem ñi bokkal sëriñ Seex Fat Sylla Njaay xewal ñëpp ñu ngi leen sant baax di leen gërëm di wax ne yàlla nañ ko yàgg màggal ay at yu baree baree baree baree lu ci jum nag ñu xam ne yàlla suñu borom bi moo ko dogal waaye lu ci jëng rek ñu xam ne matt doomu aadama la di wax ne uridu ilal islah maxtatum ba maa tawfiq assalaamu aleykum wa rahmatullah